Euh, asalaamaaleykum maa ngi tudd Mamoudou Thiam jóge ba Yëmbal Nord ñëw fii si di assister si réunion RENAFAD ATA Sénégal. Euh, du première fois laa fi euh, assister si réunion mais tey laa mën a wax ne am naa yéene daal liggéey bu baax si bureau bi nga xamante ni bureau bi bees bi ñu formé daal doon naa fi ñëw comme invité membre simple après. mais bi yoon moom ñëw naa comme acteur euh, principal si liggéey bi ñu war a def daal si si si at. Euh, li ma gën a marqué mooy que dama yàgg di yëngut si mbirum développement yàgg di yëngut si mbirum développement di nga gis ñi nga xamante ne ñu dëggu ak ñi nga xamante ne dañoo ñëw pour seen propre intérêt te defe naa dëkk bi fu ñu toll àddina bi sax fi mu toll. wax kese yoru ko il faut que ñuy jëf jëf jooju nag ma yàgg di euh, yaa ànd ak ñoom gis si ñoom si Pastef boo xamante ne man jox na ma courage pour ma ñëw jàpp si indi sama brique si construction bi ñuy def si association. Euh, euh, waaw tey jii réunion bu ñu doon def maanaam réunion bi nga xamante ne dañoo proposer bureau exécutif bureau exécutif bi nga xamante ne dafa war a. Euh, jëlaat liggéey bi nga xamante ne jëloon defoon nañ ko mais il faut ñu yaatal bureau exécutif ñu proposé ko ñu defaat si encore ay commission yi nga xamante ne ñooy jàppale bureau bi si commission yooyu nag ñu proposé ko ñu proposé encore benn assemblée général bi nga xamante ne c'est le 22 juillet incha allah bu si yàlla ànde pour maanaam ñu euh, proposé mbooloo mi Euh, euh, bureau bi ñu def fii ak commission yi ñu fi proposé bu ñu si àndee incha allah ñoom ñu mun a commencé seen liggéey wéyal ko comme ni nga ko wooree daal. Hmm. Ah, maanaam proposition euh, parce que nit moom bu ngeen yàggee di ànd rek des fois di nga xam lu mu mën ak lu mu mënul bu ngeen yàggee di def am ñoo xam ne dañuy ñëw di xëcc mais mënuñu ñoom daal titre maa nekk nii rek moo leen doy. ñu mel noonu ñëpp dañu leen seppi teg fële du ñu xëcc nit rek nii rek non dafa am koo xamante ne yow sa nit yéen a nekk yéen a doon liggéey xam nga fu mën ak fu mënul yaa ko proposé fenn foo xamante ne buñ ko defee am nañ si yaakaar dina doxal liggéey bi comme ni mu ko waree. ñu def proposition proposition aussi am na ñoo xam ne dinañ la proposé fekk euh, fekkewuñ ko mais dañ leen a woo expliqué proposé wax leen proposition bi ñu def. ba mu doy leen duñ la imposer rek def bàyyi la si biir non il faut aussi que yow tam nga am courage nga xam ne liñ la jox boo ñëwee di nga fa def dara mais bu dee da ngay ñëw pour toog rek boobu da ngay xaar par exemple benn xew am par exemple benn ngénte bala benn mariage am nga solu ba jekk dem toog foofu bu liggéey jotee nag ñii mën a liggéey ñoom la ñuy proposer maanaam loolu lañ doon def fii tey daal. waa proposition maanaam ñi fi jotoon a toog valide euh, valide nañ ko mais valida dernière validation bi maanaam assemblée général bi lay doon daal maanaam nga xam ne nit dañ lay dénk dara nga naan demal xalaatal ma boo xalaatee def pare da ngay delloo nga naan lii laa la xalaatal est-ce que ànd ngeen si walla àndoo leen si léegi bu yàlla jotee bu yàlla defee ba jour assemblée jot ñu mbooloo mi ñu invité ñu ñëw toog ñu proposé leen ñu wax leen lu ñu jot xalaat ñoom ñu entériné ko walla ñu bañ ko entériné Euh, maanaam fii nga xam ne mooy fii mooy siège ATA Sénégal di Renafat mooy réseau bi bi bi nekk réseau boobu maanaam mun nañ jàpp ne fii mooy siège bi siège siège bi aussi ñu si bëri fii la ñu gën a xam bëgguñu aussi di sonal ñi nga xamante nit boo koy woo dañ koy woo fi mu xam wala xam ñu bëri xam nañ fii dañoo bëgg ñu def ko fii rek mu bañ a sori mbooloo mi yëpp ñëw ñu bokk ko ñu waxtaan foore expliquer liggéey bi commencé waaw. journée bi moom euh, defe naa nit boo ko woowee da koy woon li nga ko woowee lan la di ko wax walla nga jox ko te liñ koy li leen di euh, euh, won mooy proposion bureau yi buñ leen proposé bureau yi ñoom tam ku si nekk am na ñu si kontaan am na suñu kontaan ku ne ku nekk génnee si xalaat. bu ñu génnee eh, seen xalaat nag ñun ñëpp ñu ànd tënk kii bi ñu xool fan ban yoon boo xamante ne yaakaar nañ bii buñ ko buñ fi jaaree dinañ àgg kon donc loolu pour le moment il faut que d'abord kenn ku ne génnee xalaatam munoo tënk fii dara fekk xamoo li nekk xalaat keneen il faut kenn ku ne génne xalaatam ñu tënk ko ñu xam ne journée bo euh, yaakaar nañu daal dina réussir incha allah. li yéen ñi tubaab yi yéen ñiy jàng peut-être yi ni ngeen di naan derrière chaque grand homme y a grande dame. maanaam base eh, développement boo gis jigéen moo nekk si ginnaaw góor mun na dem wuti mais li koy sakkanal li koy jaarale yoon kuy éduquer euh, xale yi kuy desax xale yi mooy jigéen kon jigéen dafa war a am formation balaa ngay am formation aussi il faut nga am moyen il faut ñu équiper la maanaam soo bëggee def dara am nga xam-xam bi am nga doole ji bu al bu si alal àndee aussi dina gën a euh, jëmale kanam kon jigéen ñi ñoo ngi si ay groupement ñoo ngi si ay mbooloo yi nga xamante ne peut-être ñoom ñoo ngi si def ay quelques économies tuuti defe naa bu ñu leen jàppalee aussi ñoom bu taxawee rek euh, kër yi dina taxaw te kër yi bu taxawee rek éducation bi dina baax éducation nag mooy base de tout développement. Euh, waaw euh, formation ñuy wax nit kenn ku ne defe naa am na foo féete sa morom daal. dama bëgg man fi nga xamante ne sama mën-mën àggu fa yow duma la xeeb dama bëgg nga ji nga mottali ma ma ma mën a ko compléter euh, benn mbooloo boo gis dafa am ñu compétent am ñoo xam ne dañoo sawar am ñoo xam ne ñoom titre lañ bëgg rek tur bii rek doy na yow yaay président doy na la doy na la kon kooku soxluñ ko am na koo xamante ne sawar na mais dafa xamul fu mu war a jaar ñu mel noonu nañ leen jàppale former leen nit balaa mooy gën a euh, yàkkanal alal ji ji mu yor il faut mu xam naka la koy économiser am na ku am alal mais xamul fu mu koy dépenser boo moytul à la fin dina naan amoon na musoon na am kon dafa xamul woon fu mu koy kii mais bu ñu la jàngalee nag naka nga koy gere boo demee ba am di nga xam noo koy gérer te gestion maanaam mooy ba euh, mooy fondement bépp réussite aussi kon donc dañoo ñaan formation formation yi dafa bëri mais du ñu mën a formendoo ñëpp du ñu mën a formendoo lépp aussi à la fois mais dinañ def benn par benn wala par ñaar par ñaar di former di élargir formation yi ba kenn ku ne euh, secteur bi nga bëgg ñu former la si jàppale la si tette la si bu laajee financement ñu financer la nga mun a def li ngay soxla.